naaw bi commercant yi nga xam ne ñoo yàqule woon ci làkk gi ñoom ñëpp santaan nañ bu baax a baax mun Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ñaanalaat ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér sant ko ci jëf ji nga xam ne moom la wane ci li nga xam ne moom moo dal ci seen kaw. ba ko yëgee ba mu ñaan rek dafa doyoon sëkk tey mu yëkkatiwaat ay kaddu ñëw ànd nga ànd ak Serigne Cheikh Abdou Latif mi moom moo nekk fa moom ñëwaat fii ci marché bi kon loolu day gën a dalal sunu xel bu baax a baax ñoo ngi lay yóbbante ci sëriñ bi mboolem commerçant yi nga xam ne ñoo yaxantu ci marché bi muy góor di jigéen di mag di ndaw ñun ñëpp maase nan sunu xol sedd na sunu yaakaar gën naa dolli ku baax a ndax lam ñu waxoon de wax ne yàlla lu dal waa marché bi dal ma loolu wanewaat na ko bu wér a wér a ndax bam bam toqee am na fam sëriñ Seex waxoon ko ko lam ñu waxoon mooy ab julli ab jullit day nangu dogalu yàlla wax la nga xam ne moo ca topp lépp tey jii bu wëlbati ko waatee yabal leen wax di yàlla tey suñu mi metti metti metti day gën a day day woyof bu baax a baax ndax nit ki nga xam dafa tiim alalam ñàkk ko waaye ki nga xam ne moom la yaakaar àdduna ak alaxira su ñëwee defal ko ànd jaag moom guddeeg bëccëg ëmb ko ci biir ëmb ko ci biti loolu sunu xol sedd na sunu xel sunu xel dal na sunu yaakaar gën naa dolli. maire bu Touba di Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne fekke na jotaay bi moom it ñaaxaat na ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi. ñu wakkiirlu ci yàlla waaye doon taalibe Serigne Touba te wóolu ko te xam ne lii yàlla def dafa gën ci ñoom. te yërmande ju rëy ja ak xam ne lépp alal ma nit ñi aw nitama mu mu daal di indi ko jox ko ne nañ ko dimbali ko ngir kenn ku ci nekk nanga nga fa nga nekkoon di liggéey nga bañ a am benn jafe-jafe ndax nit bu fekkee lenn rek la tiimoon yaakaar ko ñàkk ko su amul ndimbalal yàlla lu bare ñu baree bari mën nañ cee doxee euh, ba ba seenam xel jax-jaxe wala ñu sonn te sëriñ bi loolu lépp lañuy ñu bañal day bëgg ñu gën a gëm sëriñ Tuubaa te lii moom ak wane la tax daf leen a wan wane ne nekk ci sëñ Tuubaa li muy jur ndax nit koo xam ne loo dugg ma defal la ci loo yaakaarutoon te mënoo ko te boo doon def doo mën a mënoo koo defal sa bopp loolu kat ku la ko li arab di wax meraaran wax dëgg yàlla boo dee boroomam xel wara xel te bët bu yàlla sàkk mu génne leen ci géej mu génne ñu ci géej dex goo xam ne su suduloon ak moom dañ cee lab kon nag ñu bàyyi xel ci ndigal li bàyyi xel ci sàmmante ak nit dëkk bi mel di rafetal doxin wi di rafetal jëf ji di rafetal waxin wi di rafetal nekkin wi ndax loolu bokk na ci li nga xam ne moom la ñuy ànd ak sëñ bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu commune bi <coughs> di ñaan nal Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg te wér ba lépp lu mu ne ci yoonu Serigne Touba yi yàlla may ko kàttan ak am xel ak fan bu mu ko defee ndax ku mën a dalalam xel la nit koo xam ne boo jàqee mu defal la boo amee boo ñàkkee mu dimbale la loolu kat la nit ñu tey sa yaakaar yi addina ak àllaaxira loolu kat la nit mën a lépp sëriñ mënal ab taalibeem kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan na li fi comme nii mu ko waxee lii nga xam ne caabi la joo xam ne a ah, mu ubbi xéewal yi du xéewal yi du jeex mukk ci àddina te comme ko wax nga war cee xam dara de ndax ñu bëree bëree bëri de classe ba ci as jaxati mii de kenn ku ci nekk ñëw duwaat ñëw ne fii ne tungaañ sa bagage wala nga am jafe-jafe maanaam dem ci sëñ bi mu ñaanal la ba ngay laata am weer wala ñaari weer nga romb li nga defoon ba ci man mii jam bi may tàmbalee liggéey fii 93 ja awma lu dul yenn trois millions di tukki aéroport ñu nangu ko ma dem ci Serigne Saliou ne ko ah man de sama li ma amoon dañ ko nangu fekk ma gasab terrasse di ko fondation poto ya ma daal di ñëw ne nañ ko suul ndax xam naa ne dootuma am lu ma ko liggéey bi ma demee di ngir ma bëgg mu def ci intervention ci état bi mu ni ma Abdoulaye dama lay ñaanal ci yàlla yónnent bi Sëriñ tubaab mu wuutal la lu loolu maa ngi waat ci alxuraanu karim suulu ma potee tabax ba bi may laata am ñeenti weer maa ngi 72 million te 3 million laa am kon Sëriñ Tuubaa rek fi nekk mhm. Sëriñ Tuubaa moo gën a gaaw moo gën a sakkan nañ ko gëm te jàpp ko te wóolu ko te gën a xam ne ak taalibe moo woom ndax ak taalibe moo gën a gaaw ay taseer boo gëmee Sëriñ Tuubaa te nekk ci